Hmm. Bébé Diène a ngi noonu dañu ko maama contre Bébé Saloum la woon fële ca Kaolack mooy Baye Mandione ndeysaan ba mu dem na dafa defoon choc ci yoon bi te terul mu dem bëri daanu ndeysaan waaw waaw gàcce ngalaama Baye Mandione ba muy dem ci dernier combat mi dafa defoon choc ci otom gaan mu honoré contrat bi bañ a yàq journée promoteur bi moo taxoon mu dem bëre ndeysaan booy kayre mu ngi koy ñaanal mu ngi ñaanal doom ji ndeysaan booy kayre waaw waaw Boy Kairé mu ngi ñaanal Bébé Diène doomam la ndeysaan doomam la tey Bébé Diène ni mu jàppe Bébé Diène noonu la jàppe Diène Kairé ndeysaan bravo le champion le recordman de l'arène ndeysaan li ci combat kenn amu ko ci combat plus de quarante combat am na ko waaw waaw kooku mooy Diène kooku mooy euh, Boy aja wuree ba dem ka waxu dem na ndancaali ndeysaan waaw waaw ndeysaan coow la jeex na coow la jeex na Baye Mandione pare na depuis lor ay accompagné am yëpp gën nañ ñi doon moom yëpp gën nañ waaw waaw bébé Diène moo des ndeysaan ak ñi mu àndal bébé Diène ak ñi mu àndal ndeysaan ñoo des ci biir gi mais eh, Baye Mandione pare na ci bu yàgg moom xaalisam kenn du ko dagg moom xaalisam kenn du ko dagg mu koy joxoñ mu koy joxoñ waaw aja waaw waaw Bébé Diène Bébé Diène ak Boy Kayré waaw waaw ndeysaan Bamba na daan naa ñaari yoon Bamba Diène nee na daan naa yoon Baye Mboñ nee na daan yoon ndeysaan ñoon ñoon mu ngi signalé ndeysaan entraîneur Bébé bi ñoon mu ngi signalé entraîneur na ko daan na ñaari yoon ndeysaan waaw waaw भवाऊ बेसन आंत्रनर बेवनागो आंत्रनर बेवनागो हमनले में हाक मोम हमनले में हाक मोम बॉय कायरे हमनले में हाक मोम बॉय कायरे हमनले में हाक मोम हमनले में हाक मोम बेसन डेनियर combat de la journée dernier combat de la journée léegi coow li jeex combat bi combat bu nana gaw la bebe jeen Diène toj na bebe Bébé Diène toj na nen Bébé Diène toj na waaw waaw waaye ma ñoon mu ngay fomp ndeysaan bit waaw waaw aca la dernier consignes de l'arbitre Wow wow, consignes de l'arbitre arbitre mo ngi leen di wax li lamb bëgg ak li lamb bañ waaw waaw sifle mo di bolé sifle mo di tagalé Sifle moo leen di boole sefle moo leen di tagale Ndaysan. moo leen di boole moo leen di tagale ndaysan. waaw waaw waaw waaw Sifle moo leen di boole sefle moo leen di tagale waaw waaw Ndaysan. arbitre am na lu ñuy wax ak entraîneur bi Les arbitres sont en de discuter avec l'entraîneur de Bébé Diène. Bébé Diène Baye Mandione. Bébé de bras. Balancement de bras. L'expérience de Baye Mandione passe à la jeunesse de Bébé Diène. fii ci arène nationale. ci defet la jógee Baye Mandione jóge ci defet moom itam. Pape mo ngi mu bëre ak Bébé Saloum ndessane ci Kaolack avertissement verbal pour les 2 lutteurs avertissement verbal pour les 2 lutteurs avertissement verbal pour les liter. lutteurs arbitre sifflé waat na arbitre sifflé waat na diggante Bébé Diène Baye Mandione Bébé Diène à droite Baye Mandione à gauche Bébé Diène à droite Baye Mandione à gauche Baye Mandione n'a rien à perdre dans ce combat il faut que Bébé Diène jël l'initiative parce que mom ma bëgg Bébé Diène dafa wara jël initiative moom ma bëgg dara Baye Mandione perte meb na meb na me dalul cokaas me jalul cokaas me dalul cokaasaat dalul jàpp na ba hee hee jàpp ba Baye Mandione Bébé Diène Baye Mandione Bébé Diène Baye Mandione Bébé Diène ku nekk am na ngem ku nekk am na ngem ku nekk Bébé Diène Baye Mandione Bébé Diène Baye Mandione faxataat na ko faxat na ko penalty penalty daan na ko Bébé Diène daan na ko Bébé Diène daan na Baye Mandione Bébé Diène daan na ko Bébé Diène songu na Boy Kaïré Bébé Diène songu na Boy Kaïré Baye Mandione dafa daan Boy Kaïré ñaari yoon ndeysaan Baye Mandione daa daan Boy Kaïré ñaari yoon Bébé Diène vengel na ko tey Bébé Diène vengel na baayam tey Bébé Diène vengel na ko ñaari yoon mais boy bi feeku na